mbokk yi Serigne Abdoul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yëpp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar Afrique moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz Diaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñu di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca cees ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu tee lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ci góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz jaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seen i mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz Diaw moo a ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. ñu dem ci Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw su fekkee ni Modou euh, toppare na ci rek Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw dañ ko xamee woon ci nettali ay jaar-jaar yonent muy siiratu nabawiya di émission bu amoon doole bu amoon rajo dunia boo xam ne fu àjjuma euh, masaana jot kenn dootu ko manqué ci euh, Sénégal Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moomu nag xëy na daal jaar ci aw yoon woo xam ne ñu bari nee nañ du foofa ñu dem dellu siwaat ndax foofu la wala du foofa alors Ablaye Wade ñaata at leen ko fi tëj ñaata yoon leen ko fi tëj ñaata at la toog pour xaar yaa ngi dégg waaye daan na wax ne du ma jéggi ay néew pour toog ci nguur gi waxuma sax Ablaye Wade ndax jullit la Thomas Sankara chrétien la euh, Thomas Sankara ñu bari ñuy révolté di wane ne ñoom tabarak xaw ma pan africain leen koy tuddee xaw ma xaw ma nuñ koy waxee waxeeti ma waaw pan africain bu defee naa euh, ku ko gën a nekk euh, Thomas Sankara mais li yéeme ci Thomas Sankara boo dee topp ni ñu ko reyee ñi ko doon rey bi ñu ñëwee dañoo éliminer mbooleem ñi ñu fekkoon ci biti léegi nag ñëw ci saal bi nga xamante ni fi la ñuy defee réunion bi ne leen génn leen daal di leen di xamal ne Thomas Sankara la ñu soxla Thomas Sankara génnee fital bi mu yoroon teg ci kaw taabal wax ak ñi mu bokkaloon réunion bi ne leen aajewul ngeen di génn ndax soxla wuñ leen man la ñu soxla damay ragal ñu rey leen te da ngeen a am njaboot su ko defee man mën leen maa rey mais sama idéologie mënuñu ko rey yéen ngeen ngeen ngeen yenu ko yóbbu daal di génn ak ñaari loxoom tàllal ko ñoo rose ko ay bal ba mu tooy xëpp ak deret mu daal di daanu daanu dee kooku sacrifié na boppam pour ñi mu bokkaloon réunion bi mucc kon kuy roy Thomas Sankara dangay roy léppam Euh, dafa am benn kilifa ci ñi jiite ci opposants yi dañu wax ne bi Macky gañee euh, yoon bële dañu waxoon ne ñoom dañuy génn pour manifester mu ne leen man du ma génn di manifester di rey benn doomu jàmbur def na ci sax ay waxtaan ne ku leen sant ne na ngeen génn manifester wu moom mu nga denc ay njabootam moom moo moomu tey moo changé waat waxam ne génn leen ngir intérêt boppam ku ñu ci rey itam sa yaay juraat ku ñu ci rey itam sa yaay juraat ana ban baat moo gën a soxor baat boobu ana ban baat moo gën a néeg ko yor turu mais turu yéeféer la waroon a nekk bëri na ko yor turu yéeféer mais turu jullit la waroon a nekk ndax kële jëf ja def di jëfi jullit mooy li Thomas Sankara def am ñoo xam ne seen jëf jëfu yéeféer la am ñoo xam ne seen jëf jëfu yéeféer na ñoo xam ni jëf yéeféer la ñuy def euh, la cheikh boobu le wax waaye xam naa bala ñoo dem ci euh, plateau bi ma am rek kàddu ko fàttali ndax euh, daal do fa zakir fa inna zikra nii muminina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 voilà mi ngi noonu Assane rek kon kooku mooy seex ma Tidiane ndaw wax na nag ci Thomas Sankharé am na histoire bu mu nettali euh, ñëw na ba ci ku dee sa yaay juraat li ma jublu ci indi ko nag sama mbokk daara la te dama koy dimbali rek pour wan ni kat loolu bu dee ñu la wax la du wax ji du noonu la demee woon euh, nan nga jàngatee Cheikh ma Tidiane ndaw waaw maa ngi kontaan ci kàddoom mi kilifa yi di ci profité di ci nuyuwaale walee baay mbay peex mbay peex waaw di kontaan ci taxawaayam ci réew mi moom Cheikh euh, li mu wax son bu noonu la ndax borom xam-xam la te it moo ñu mag. attends xaaral te it moo ñu ëpp xam-xam xaaral yow fi mu doon nga ni li mu wax lépp noonu la kon kay jël nga yaatal. li wax yëpp noonu la. kon kay jox la hélas. daanaka de. ah daanaka de. li wax lépp noonu la. <laughs> bu yeggale ah, lu tax mu ne noonu mais day noonu ndax bu fekkee ni côté Thomas Sankara. Hmm. ñoom ñoo fi nekkoon ñoom mag ñi. ñoom mag ña ñoom ñii. ñoo ñu gën a xam histoire toog maîtriser histoire ba xam mbir ma nam demee woon mu fekkee ko mm-hmm. kon lim ñu si wax kuy nettal jamono yónnante moom waaw kay jamonoy ah, Thomas Sankara la waaw dégg naa la kon jamonoy Thomas Sankara mi lim ñu si wax gëm nañ ko gëm naa ko ñu ngi ko siy ndokkeel bu baax a baax ku dee sa yaay duraat ku dee sa yaay duraat it li mu wax noonu dëgg la Ousmane Sonko ko wax waaw Ousmane Sonko moo ne ku dee sa yaay duraat moom nag xañ na Assane xaaral wër na yàlla bul sacrifier sa bopp sacrifier sama bopp léegi li ma la tegal nii léegi nag ba waaw dégg moo tax dama saa jël ku dee sa yaay juraat ji Ousmane Sonko ko wax waaw moo ko wax kay maa ko dégg si làmmiñam waaw moo tax moom mu wax ko déggoo si baatu ku dee sa yaay juraat non non baal bu ma dégg dama ni lan mooy intention Ousmane Sonko lu mu wax intention ba ñun su ah, yoon nekku si sa yoon nekku si sa yoon nekku si intention sa yoon nekku waaw suñ yónneeku nekku si intention bi yoonam daa nekkut lu sa yónneeku nekkut loo si wax. yow la bokk ak nger. nger sama waay la mais intention bi. non attends xaaral Assane xaaral. non non non sa waay man mii dañ ma fee arrêté ma dem si yoon. waa xaaral waa xaaral waa dama lay wax rek xaaral Assane dama ne waxuma dégg nga ci baatu xam nga bu doon loolu da ngay dégg ci baatu alxuraan rey. ku rey voilà. xam nga kon bu doo ci rey rey ga jëla jël la rey jëla ni coppet teg. Hmm. loolu léegi si am solo waaw lam sa soxla la sa jël. nit ki bu waxee lam soxla nga la nga sa soxla. xale yi nee nañu ku dee sa yaay juraat ma ni dee sax du ci am bu soobee yàlla. waaw léegi nag bu xam nga ñaari baat. dafa am lan moo tax jëlul dee sax du ci am. waaw da koo soxla ah lii la soxla. waaw li mu soxla rek la si jël. d'accord man fii bi ñu ma fi arrêté wax naa waa ji ma ne ko da ngay dem nga diglu avant may wax lii ak après bi ma waxee lii li sabab wax jii mu ne du ko déglu mu ne ma lii 30 secondes yii daal moom laa si jot te wax dëgg yàlla am ma temps dem xool avant ak après nga bëgg a def yow nga bëgg a def may ma xam ne moom lam soxla la jël kiit lim soxla la jël d'accord nañ ko ko nangul kon mi ngi noonu euh, jërëjëf alaaji mhm. euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ndao mi ñu xam ci siratu nabawiya léegi nag macha allah am na daal ay révélation yu am solo yu doy waar yu muy def noo jàngatee waxam ji waaw waxam ji de man de ni ma ko déggee hmm. Euh, dama ko dégg rek mu nekk nit koo xam ni. Hmm. Euh, dafay nettali film waaye nettaliwut histoire. Hmm. maanaam day jël film bi expliquer ko suspense bi ni nga xamante ne bi noonu la demee parce que dafa la indil loo xam ni amutoon ci jamono jooju. Hmm. temps boobu. pour loolu mën a ne. Euh, parce que Blaise bi muy coup d'état nee na dañ ko fekk ci réunion. Mhm. biñ ko fekkee ci réunion Sankara mi ngi wax ak gars yi de man lañ soxla. Mhm. ñu ne ko waaw mu ne leen toog leen génn fetalam teg ci taabal bi. Mhm. ne leen man mii lañu soxla. su ma génnee daal dee dem buñ ma reyee yéen ngeen doxal li nga xam ni mooy samay ngëm-ngëm. Mhm. dal di génn ñu rey ko mhm. xam ne loolu mooy kuy nettali film mhm. maanaam loolu film la ah. loolu bokkut ak yëf yi ni nga xamante ne bi noonu la demee léegi bu ñu ñëwee ci cadre idéologie après bi Blaise demee bi Blaise ñëwee jiite nguur gi ndax xalaati Sankara dox na Blaise moom coup nañ ko fi keneen yéeg. Mhm. keneen kooku defe naa coup de nañ ko fi ba tey euh, ki nga xamante ni kii mooy ki yore arbe bi tey nga xam ni ñëwaat na coup de kooku sax moo gën a yor sax fi mu toll nii ay gis-gisu Thomas. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. maanaam moom gis-gis la wax mais ñaata at la Burkina lan la Burkina perte ci bi nga xamante ne bi Sankara dem na. parce que Sankara tegoon na Burkina ci yoon. Mhm. mais après ñaata at lañ perdre. d'accord. Mhm. depuis lors. Mhm. bu fekkee ne xalaat bi deewut waaye ñaata at lañ perdre. lañ perdre. xam nga buñ ñëwee nag ci leneen li nga xamante ni bii. expliqué na ko ci lu jëm ci wàllu Ousmane Sonko. li mu wax. bon xam nga booy dee da ngay nettali ay histoire lu nit ñi dut fekk. boo ñuy wax ci li ñu xam mu wérut waaw dañuy wóor ne lépp loo ñu mës a wax daawoo gëstu parce que yow li xew tey hmm. nga war a taxaw di ci wax hmm. nga wax ci wax joo xamante ni bii lu dëgg dañuy xam ni lii moom amut hmm. parce que lii moom dégg nga li Ousmane Sonko wax nan lañ ko waxee xale yi ñoo ni in jaakum faasixun bi nabba in fa tabayanu waaw dafa mel ni jàngut loolu jàng na ko de defe naa ni da xibaar bu la dikkalee da nga ko war a gëstu ji yaa ngi dégg. Mhm. son bi chaque jour ñu indil ko xibaar. Mhm. léeg-léeg sax man dama naan son bi dafa soof. Mhm. parce que lan da nga naan ko dama naan est que lii du lu yàgg est ce que lii du lii est ce que est ngi lay poser ay questions. léeg-léeg Assane nga envoyé ko dara mu naan la est ce que lii la est ce que lii. que lii est ce que lii comprendre nga. finalement yow sax da ngay dem yow miy liggéey nag moom nga ne mais kii li muy seetlu dafa bari de trop quoi comprendre nga. et pourtant noonu la war a demee. Hmm. da ngay xam ni. li ñuy wax noonu la war a demee même boo demee ba ci biir sax yow mi ko indiloon xibaar bi nga xam ne li ko indil lu wér la mais am na raison ci poser question yooyu mhm. parce que xam na ni système internet di doxee ak yëf yi ni muy demee mhm. loolu xam na ko moom mii tey mhm. nit mënoon na manipuler waxam ji waaw wax loo ko leneen waaw dëgg la yaa ngi dégg est-ce que bu boobaa dañ naan ko yaa wax lii donc il faut que mu def très attention ci li nga xamante ni bi moom la ñuy moom la ñuy waxee. Mm-hmm. xam nga tey jii jamono ñu toll nii. Mm-hmm. Euh, son bu dafa am ñu bari ñoo xamante ni bi ah. bu dee naw nañ la ci benn côté. nit ñi di la dégg yaa ngi nii wax ne. Mm-hmm. li mu daan wax ci wàllu. diine jaar jaar yonent yi nit ñi dañ koy déglu di ko bàyyi xel. bu la jara dalal nga génn ci sa terrain boo xamante ni bi ki dugg ci loo maîtriser wut loo bu dee loo maîtriser nag xam noo cay duggee mën nga caa dugg mm-hmm. mais bu ca dugg dugg par parloo mm-hmm. boo cay dugg dugg ci dugg ngëm-ngëm tey la nga xam ne moo cay dëgg parce que image boobu la ñuy xool ci yow mm-hmm. la nga moo ciy dëgg ma ki mais bu dee da ngaa def li Assane def nag muy gën a nekk catastrophe jël ca la ca soxla waaw bu dee loolu la def moo la gën a nekk catastrophe parce que Assane nee na lam ca soxla la jël ah. waaw waaw léegi ko ci yitteel waaye intention maanaam la Ousmane ko jiital ne xale yi nee nañu. loolu yitteelu ko ku dee sa yaay juraat ba mu son ko wax. looloo ko ci yitteel. waaye wax indiwut xale yi nee nañ. ku dee sa yaay juraat. te dee sax du ci am. waaw te dee sax du ci am loolu yëpp yitteelu ko. Mhm. waaye li ko yitteel rek mu ne xoolal baat bu ñaaw boobu. waaw waaw te defe naa ni. Mhm. bu ñuy wax defe naa ci wàllu diine. Mhm. bon donc yéefar mooy lan mooy ku. gëmut yàlla gëmut dara. ku gëmut dara yàlla amut yonent. waaw sunu mbokk chrétiens yi nag am nañ diine. Mhm. gëm nañ wala déedéet. Ah, donc comme dafa jógee ci Thomas Sankara Thomas Sankara chrétien la woon. waaw du dëgg. Mhm. sunu mbokk chrétien la. du korom sunu mbokk sunuy mbokk lañ sunuy kii lañ. Mhm. gëm na yonent yàlla saa. waaw du gëm nañ yàlla am na. donc te comme que mi ngi wax naan turu. Ah. yéefar ak turu kii. nam euh, nañ moytu di dugg ci terrain yu. yu yooyu quoi. d'accord waaw te eh, da wax wax bu am solo ku lay nettali jamono yonent te fekkewu ko fekkewu ma ko mu man koo gëm. Mm-hmm. su demee ba di la nettali histoire boo xam te du dëgg. Mm-hmm. da ngay inquiété wu lam la daan wax démb. mooy mooy mooy histoire ngol-ngol yi rek bi ma nee la ay waxam doyatuma. parce que li ñu xam bi mu ciy wax waxutut lu leer donc nag bu may wax naan ma. Hmm. jamonoy mbàbb nii wak lii wak laa. mënatuma koo gëm parce que. te man demoon naa kër gi ba ñëpp naan ma utal ma kele Cheikh Ahmed Tidiane Ndao. <laughs> waaw ñëpp ma utal ma kele. waaw ah, ko doon déglu lu bari. ñëpp naan ma sooy bu utal sama ba mag Touba. Maam ah. Ngor Diop ak ku ci nekk naan ma Diop utal ma kele bi. waaw kii moom kii ngay déglu ah, ah. li mu def si yow bari na trop. <laughs> non non non lu def nag non si laa doon déglu rek. mais baax la non non wóor na lu bari def na ko ci moom. déedéet non non dama la bëgg wax ni la. 24 heures sur 24 moom lay déglu. waaw mais loolu baax na na wala. waaw wala wér na foofu kay nag na wér na tekk tekk nga daan def di ko déglu. Hmm? waaw est-ce que wér non tekk googu léegi tekk googu lay remettre en cause. xam nga maîtriser gi ma ko maîtriser. parce léegi moom ay euh, siiram moo moo moo doyatut man xam nga maîtriser gi parce que bu dee nii lay siiraa bu dee ma xam moom nii la ci waxee kon lam daan wax doon jar naa gëstuwaat xam nga maîtriser jar na di teg ku ko yoroon boo yeboo supprimer ko xam nga xam gi tax na euh, bi mu fi waxee ci waxu ngañ demba bi ci wàllu wàllu <laughs> yàlla lañu war a jaam xam nga dem naa ba génne wax bu gën a doy waar waxu ngañ demba bi ci moom ni mu doon waxee mais bi ma ñëwee wax la ni la damay def vidéo da nga ni ma acharnement lay doon bu ci def vidéo mm. bàyyil noonu mm. xam nga kon kon muy wane ni yow doo noonu waa ji te pour pourtant dama dem ba dégg lu mu waxoon ci siira nettali ko ba toll ci nit ñi ni ñuy jaamu nit ñi kilifa diine yi fi ñu leen teg dem ba leen di jaamu comme yàlla naan saani ma bu ci bu ci bu ci wax. Hmm. ndax def nga ci benn vidéo boo ci waxaatee day mel acharnement bàyyil noonu mu bàyyil mu sedd. Hmm. kon pour wax cee la wax nit ñi jàpp ni sax peut hmm, kii <laughs> dafa am saay-saay yu may kar waaw <laughs> jërëjëf ndaw maa ngi lay bu baax a baax waxoon naa la ne la cofeel gi ma la bëgg wàññiwul dara nag cee la ma moom moom dinaa ko xoolaat.